خرجت taarix ba mooy junne ki ñetti téeméer ak fukki at ak ma wax la waral magal ga nga xam ne Seex Bamba réel demam ga taarix ba ama jëy mooy at ma moo di lelub sëriñ Basiiru ma nee la yàlla defaloon kalima fi daari defal ko ba yàlla buur ba farataal tabaski ak tamxarit may na ko gaay mbakke bi xidmatil xadimi lil muxdoomi fil baari farlu leen ilaa tahsimi la daam wesar ca booti yoonu géej ga laay bëgg way ngeen xam ne ban baay géej ga mbàkke bari fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci atum junni ak ñetti téeméer ak fukk ak ñett dëppoo ak samedi le 10 août 1895 pàkk bi nga xamante ni bii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu feeñoo Serigne Touba ci kooruk 1895 ci jàkka ji nekk Darou Khoudoss ànd ak ahlu badr ba mu jaayanteeg moom xamal ko ni ko aaral nañ la pàkk bi di Touba ngir nga jot bi da ngay ci la ci mars 1895 sanc fi nga xamante ni bii mooy Mbacké Bari nasran bi diko ko diko wo mu yebal borom daarul muhti, mu dem wuy ji ndar kere bi nga xamante ni borom moo Muuti jóge na ndar ñëw fekk na sëriñ bi jot ndigal ci sunu borom ak yonente bi sallallahu alayhi wa ngir wuy ji nasraan bi ba mu ñëwee def ko ni jibril wuut na la fi aaya bi la ma indil mu nekk ca suratul anfal يكفر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين Cheikh Abdoul Ahad Mbacké wax na ni Serigne Touba bi muy laajte ni ndax borom Daaru Muhti egsi na bi mu ñëwee fekk mu julli fajar ba noppi daf ko lëng ànd ak moom dox jëm ci kër ga ba mu demee bay waaj dugg ci kër gi tudd yàlla ci kaw ni ko ceer na mu ni ko mbakkee mu ni ko sunu borom xamaloon na ma ni sama duggaat ci kër gi dafa xaraam kon nañu ma takkal fos yi nga waroon ma war ko te dem kon fii la tàggatoog borom daarul muxti bàyyee ko njaboot gi ak taalibe yi ñëw fii nga xamante ni fii la fekk l'administrateur de Saint-Louis muy le clerc di jeewal fii ci jeewal fii la sëriñ bi fanaan jóge fi dem kokki jóge fa ñëw ci gaaru Louga bi ngeen jàkkaar lool nga xamante ni bi mu ñëwee Louga taalibe yi amoon nañ lu leen metti ni nga xamante ni ba mu bàyyi ko kokki jaar Belel Diop waa Belel Diop tubaab yi wax nañu ci archive national ni dañu leen a mere ba tere leen seeni teen ni leen du ngeen fi wëgg seen i fos ndax jaamu yàlla bii ngeen di yóbbu jotewu leen ak moom dara bi sëriñ bi ñëwee Louga itam لول نك داف كو بيند سي ساو ساكو راتوف ني اعلم ايها الاخ صالح كفانا الله تعالى درر كل طالح هني خرجت يوم السبت الرابع الزفر عام جيسة من الدار التي بنيتها في أرض جرف بعدما أتتني براوة من أمير الدار التي جرى بيني وبينه ما جرى من الخطر موي واخ با نيغا خامني سي غناو لوغو مو ني تاخا جوك si ahmad bamba ci bopam waxal bopam ni ñëw dugo waxtu jël Koku moko waxal bopam waxtu jël kon ci la cheikh ahmad bamba khadim rasul radiyallahu taala anhu ñew fi ci lugo mune wa saraytu min tilkal qaryatil mubarakah moy mu gon mu ko ki bob nga xam dekk bu barke la ma kasire mina nasi wa kafani saraytu bela musaraka ووصلنا قبيل الفجر الى القريه المسمات باللغه كون سنتو با نينا نيونا سي دك بو دك بيغا خاني بي موم دانيو تود لوغا وانا في تلك الليله ممن على الله تعالى وحده ركا وقلنا فيها وانا اتلو خير سيغري واصلي على من بجاهه كفيت كل مغر كون شيخ احمد بام قادم رسول كون بيوي ديم سي جيجي وقتو نجل دانيو لوغا في لا جولي صبا جولي في تسبار julli fi takkusaan lim fi yandoo woon a def mooy jàng alquran ak julli ci sayyiduna muhammad sallallahu keroog la yendu lugoom naa ko teenga fetal jihaar mu banaa ko yàlla inna laa teg yu daafiw ani siina amanoo ngir saafiw taalibe yi bëggoon nañu xeex ak nasraan bi fii ci Louga kon fii la sëriñ bi jëlee saxaar ñëw nag ci barab bi nga xamante ni bii mooy Ndar di Saint-Louis bi mu ñëwee fii la nattu yi tàmbale ndax sëriñ bi nattu nañ ko ñaar téeméeri nattu ak juróom-ñetti fukki nattu ak juróom ji ay baqara waaye gaynde gi ñu ko njëkk a booleel ci jardin d'essai fii la xewe woon ci ndar ci juróomi fan ci weeru septembre 1895. 1895 boobu nag nee ñu tubaab yéeg fi indi. nun xam nañu ne ñun murit ni moom daf doon dox. dafa nekkoon ci mission wu yàlla mais nañ ci la bi yi daal la ñu wéeru la la wéeru pour ñëw fii 1895 boobu mi ngi commencé liggéey liggéeyu géej gi ci la ñu dajale conseil privé bi ci bureau gouverneur bi ñu jàkkaar lool fekk na ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août di une semaine avant le 5 le directeur des affaires politiques Merlin rédigé woon na benn rapport bopp bi conseil privé bi dajee moom Merlin dafa ñëw jàng rapport ba ba mu noppee ñoom ñëpp ñu signé wax ni d'accord nañ ca ñu tuddee ko procès verbal bu conseil privé bu cinq septembre waaye procès verbal boobu bind nañ ko une semaine lu jiitu ñuy atte sëriñ bi ndagam mën nañ ko tuddee ab atte ndax ku ñu daan atte da ngay am ay avocat yu lay défendre waaye sëñ bi moom rek la woon ak sunu boroom te mu julli woon fa ñaari rakkam yooyu nga xamante ni bii moom la ñuy màggal ba léegi fii ci bureau gouverneur ñoom tubaab yi wax nañu ni sëriñ bi bi ko indee ci conseil bi wax nañu ko li mu li ñu koy duural tontu na leen waaye la sëriñ bi tontu ñoom nasaraan bi ba léegi indiwuñ ko kon bi ñu ko jëlee fii ci ndar lañu ko indi ndakaaru nga xamante ni bii fa la fanaanoon yaari guddeem yooyu nga xamante ni wax na ni su ci xelam demee dafa doon bëgg a jël ay ngànnaay ngir xeex ak nasaraan bi waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ciy génne kon pooru ndakaaru bi fi la ñu embarqué ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre ci at moomu 1895 ci bato bu ñuy wax la ville de pronambouk di dëkk boo xamante ni mu ngi nekk ci euh, Brésil kon diggante dakaru ak euh, Conakry fi le sëriñ bi jullee won ci géej gi julli tisbaar nga xamante bi ci ci gi bi ba euh, Conakry Fofa, la ville de Pronambou, di bateau bi ko jëlee ndakaaru na fa ay jafé jafé ndax sëriñ bi wax na ni euh amna ku wax ak bi sirène bi yuxo ci bato bi la fa bàyyi sëriñ bi daw xoli lu xew sirène ba di yuuxu ba mom talatu la ci bi kon la wax ni bato ba ko kenen la ville de pornambouk bi mu ñewé Conakry la am ay problème ba ñu changer bato ba kon bato bu ñuy wax Tibet mo jëlee sëriñ bi Conakry indi fi ñu jakar di Libreville di du Gabon fiñu ñu jàkkaar loolu nag ku tedd ki rasul ci Ahmadou Bamba fii la wàcce passerelle bii ngeen seen ci bi débarqué kon fii la jaar ba wàcc ci suuf si bi mu wàccee itam nag fii ñu jàkkaar lool nga xamante ni ñaari rakkaay yi sëriñ bi njëkk julli ci Gabon fii la ko jullee magasin buñ doon wax malayka moo fi nekkoon waaye euh, cabinet dentaire di docteur buy faj ay bëñ moo fi nekk ak benn pharmacie kon fi ñu jàkkaar lool ci la sëriñ bi a julli ñaari rakka mu julli Gabon bi mu fi bàyyi ko nous ñu jàkkaar ñu doon ko wax les anciens cimetières ay sëg la woon yoo xamante ni sëriñ bi fi la dëkkoon waaye fii ñu jàkkaar di la grande mosquée de Libreville di jàkkay Libreville Juma ju mag ji fii fi la sëriñ Touba daan waxtu yi juróom pàkk la woon boo xamante ni bii moom moo xamoon lu taxoon mu taamu ko fa la daan dem di fa eh, julli waxtu yi juróom di dellusi si fi nga xamante ni bii mooy les anciens cimetières doonoon ay armel armel yi nag su waa néew yi ñu fi daan yi ñu fi suul seen yuux yi dafa daan lëjël sëriñ bi ba tax na sëriñ bi dafa daan bàyyi ko dem di seeti foo xamante ni fu dal la foo xamante ni dana fa man di jaamu yàlla loolu moo tax mu tànn fi ñu wax montagne sainte foofa fala daan dem di fa jaamu yàlla danañu fa ñëw ci kanam fusillade maanaam fetal gi nga xamante ni bi doon nañ ko ko fetal ñoom nasaraan bi wax nañu ni foofee ca montagne sainte fa la euh, xewe woon montagne bi nag ci 1855 la ko tuddee la montagne sainte lan moo taxoon ñu tuddee ko la montagne sainte mooy ay protestants ñoo gàddaayoon ci quartier yi nga xamante ni ay animistes di ñoo xamante ni amuñu diine gëmuñu dara ñoo fa dëkk ci la protestants yi ñëw ñoom ci kaw montagne bi tuddee ko la montagne sainte kon at mi nga xamante ni ci Zahir am nañu wax ni ci la sëriñ bi feeñ di 1855 kon ci la la montagne sainte Tudu montagne sainte ndax Amna Ben l'abbé ben père ku wax le père Raponna Walker terrain bi mu bind tuddé ko la toponymie de Lester ma nga wax ci la montagne sainte ci 1855 tout du montagne sainte waye la ko jiitu woon mu ngi tuddoon Nomayi Benga nomba'i Benga n'ak ci la réew ma mooy la montagne de Benga kon montagne bi ci Benga lañ ko dan dàkkental kon ci 1855 di at mi nga xamanteni ni ci la ko tedd ki feeñ ci la ko tuddé la montagne sainte wayé ñeent fukki at gannaaw ba ci 1895 ci la don la montagne sainte ngir nun murit ci la la montagne sainte ngir jullit yi gannaaw ba nga xamante ni bii ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba tànnoon na ko ngir dem daa fa fikr daa fa jaamu yàlla daan fa weet kon armeel yii fi la dëkkoon ci 1967 président bi Gabon njëkk am muy Léomba bi mu faatoo fii la ñu ko suul gis ngeen mémorial bi nga xamante ni moom lañu ko tuddee moom ngeen jàkkaar lool nii euh, bàmmeelu Léomba ñaari picc yi weex yi ngeen seen motim tiim bàmmeel ba mo nek fi waye bâtiment bi ngeen di seen ci gannaaw serigne bi fukki dërëm yi ñu daan fay muy rent bi nga xamante ni prisonnier politique yi fi nekkoon yépp ñu ñu ay prisonnier politique ñu déporté leen kenn ku ci nekk am na rent bu ñu fay par weer moom sëriñ bi mu masaana seen ñi yor xaalis bi di ñëw dafay daje ak ñoom fukki dërëm yooyu fi mu ko daan suul moom ngeen seen ni tey moo doon eh, ministère du finance bu Gabon trésor public itam faut euh, fofu ñu ko euh, tabax kon fiñu jakar lol fi le serigne bi daan suul khalis bobu tey te muy trésor public ak ministère bi yoré mbirum koom-koomu euh, Gabon kon dañu dellu si Montagne Sainte bi nga xamanteni 1855 le ko tudd waye 1895 la donne Montagne Sainte ba fa Touba tambalé jaamu yalla fofu nak fi la mouride yi tabax Juma, ji nga xamanteni bi moy mooy mouride ji nga xamanteni bi danaka liggey bi eggna kon fi ci Libreville barina. xew-xew yo xamanteni bi fofu la xewé dañuy and ak kenn ko xamanteni bi fi la nek di oustaz Massaer Fall ñëw na ak nun ci tënk ci séjour bi nga xamanteni serigne bi def na ci Libreville. gëna bi ñu sante suñu borom tabaaraka wa taala jullu ci yoon tambu tedd bi sallallahu alayhi wasallam ci darajay khadim rasul serigne touba day kiimaan ci kiman yàlla yi di mojisa ci mojisaatu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam leer leeru yonente bi nga xamne ne mool ci sanal lépp moy gindi xeet ba ba adna yi tukki subhanahu wa taala feeñal nako ko ci moom sababu géej gi Sëriñ Tuuba dafa wax ne سبب خيبتي أن الله أراد أن أنال منه جهة وأن أكون خادما في دمي وشافعا لقومي سبب التكبير خمن تري من كرن تكتي جي جي على دفن لما تمن ما أم تمام أي درجة يكبه تران كوه أنا ما يرمو جام أدنى على آخر اللي جين غيران تسال سلام جي جي بني وخي غابون لتي أب إمبورتانس ما أنا موي في نيو تاو تاي ليبرفيل كم نينكو كيسيونات كيسيونات بموي sëriñ bi bi mu wàccee fii nga xamante ne fi ngeen demoon fi suba muy foofu mu wàccoon bi mu fa wàccee ne dafa dox ay jéego julli ñaari rakka bi mu jullee ñaari rakka kii man am na foofee ndax foo mu jullee woon tey jii magasin la boo xam ne ñu ngi ko tuddoon malaayka turu malaayka nag ñun xamuñu ba léegi ak sat lu ko waral waa ala kulli xaalin fi mu toll ab pharmacie moo fa nekk ba mu fa jógee ñu yóbbu ko foofee ca ancien mosquée boobee muy mosquée centrale mu nekk fa jamono boobu nga xamante ni fa la ay euh, néew nekkoon yoo xamante ni ay yëfar lañ bu guddee ñoom seen bopp si yuuxu yooyu nga xamante ni ñoom loolu lañ yuuxu moo taxoon sëñ bi ñu déplacé ko fii kii man am na fa it ndax nekk gam fa nekkoon it ña nga xam ne dañ daan ñëw di ko jox ay dërëm yooyu ñu ko doon warlul war weer wu dee su leen sëñ bu ma saan seen ñu ñëw nee nañ da leen da leen di dogale ngir bañ mu fekk leen fa ñu jàmm yàlla fa mu leen dogalee nag ñu jox ko dërëm yooyu mu sóolu ko fa tey jii mooy ministre des finances dend ak euh, trésor boobu te la jógee ñëw fii nag ci libre bi libre bi nag fii ci montagne sainte montagne sainte bu ñu waxee mooy montagne mu sell mooy arbatul muqaddasa moom la ko arab di wax mu nekk euh, barab boo xamante ni daanaka mën nañu wax ne li sëñ bi yàgg yàgg biir Gabon lépp lépp li ëpp importance fii la ko waxee da koo tënk rek ci benn bayit mu yasara lii al muna la daal libar wali man xaada lii maa xaaba an kulli wali fii ci libar wali ci la ma sama borom yombalale lépp loo xam ne gars yu baax yi bëggoon nañ ci mu jafe duñ ci dellu si ndax sëñ Fallou mais wax na lépp yow mi daanaka lu ci ëpp solo am ko ndax ñun ci mbind la ñuy xool li ëpp solo lépp lépp sëriñ bi wax na loolu mi sëñ Fallou tubaarkàlla mën na daanaka mënoon naa wax rek su waxoon rek mën na ci yem waaye ala kulli xaalin barab di montagne sainte moom barab siyaara la barabu barkel la kep ko xamanteni da nga am aaji bo ñëwee fi ni ko alaaji kay mur sadi waxee ak seigne Cheikh Ngom Dëbës ci am lepp lo soxlo yu daal boo ñëwee julli sa ñaar raka jang xasaayit ñaan seigne bi ndox moomee shifa la min kulida daar kon dal duñu guddal di répéter wat li nga xamanteni mom la seigne Fall waxon ak li nga xamanteni mom nga wax fi dañuy ba salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon fi ci Montagne Sainte bisu talata ci lañu wax ni ci lañu jël serigne bi lëkkale ko ak garab wut fukki tireur d'élite ak ñett ngir ñu fetal ko waaye teen bii ngeen di seen itam wax nañu ni ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba ba mu daan bàyyi ko ci les anciens cimetières foofee ci sëg yi ñu ko dëkkaloon bu daan jaamu si yàlla fii mu daan jàppe mooy teen bii tey te murit yi di fi jël ndox moo xamante ni bii dañu ci barkeelu kon dañuy ànd ak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 kon Libreville la ñuy njëkkee ndax sëñ bi dafay nettalil boppam histoire géej ji da ko ñoroon ba fa mu jaar bind na ko détaillé ko moo tax mu bindal boppam wax ne bi nga xamee ne jóge naa Mbàkke Bari jaar jeewal jaar Ndar jaar Ndakaaru jaar Conakry jaar fi ñuy wax Garambassa ca Côte d'Ivoire jaar Dahomey muy Porto Novo euh, bato bi dafa continuer wutsi fii di Gabon mu am ñaari version benn version bi ni ngeen ko xame rek en tant que historien yéen benn version bi day wax ne bi mu ñëwee ba tolloog côté Libreville wala côté Gabon yi dafa yéeg wuti Matadi Matadi di port bi nga xam ne mooy port bi gën a mag ci euh, fi ñuy wax Congo Kinshasa euh, sëñ bi sax tudd na turu euh, Matadi ci boppam ci ay mbindam ak ci ay ci ay woyam ansaani yam tidaahu nadbin hatidi jumlatama laqaytu nahwa Matadi mu ne tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ma fàtteloo nattu ya ma doon daj bi ma tolloog matadi ñu wax ne ba mu agsee foofu nag le gouverneur général bi yilif Afrique équatoriale française bi nga xam ne ci la Gabon bokk eh, Libreville di capital bi jot jox joxe ndigal ne nañ ko jëlee foofu indi ko Libreville mu ñëw Libreville wàcc ci débarcadère bi nga xam ne fi la ñu jaar léegi gis ko ni ko eh, sama mbokk sama xarit ma seer waxee léegi dox ay jéego julli foofu ñaari raka ñu interné ko ci biir quartier général bi nga xam ne fi la tubaab yi nekkoon foofu ci biir centre ville bi ci wetu mosquée boobu nga xam ne euh, moom la ñuy wax mosquée centrale ancienne mosquée euh, waaye mu doon euh, def léeg-léeg muy ñëw fii wala mu gi ñu indi ko fii ngir jooy yi ñooñu nga xam ne ñoo di néew yi newoon ci armeel yooyu nga xam ne moom la ñu romb sa sànq fa la ñu jóge sànq waaye sëñ bi bi muy nettali nag mu ne bi ma agsee Gabon ci mbindum arab جزيرة غابون الشهيرة وشقاوة أهلها عند الله تعالى وعند أحبائه معا مشهورة غابون غسيو جيغا خمني sëñ bi ko wax ne gabon gu siiw kon booba gabon mel na ne siiwoon ndax ñu bari xamoon nañu ko baasee gabon gu siiw gi nga xam ne ñi ko dëkke woon ci booba jamono seenu ñàkk gëm yàlla ak seenu ñàkk tënku ci li yàlla bëgg taxoon na ñu nekk ñoo xam ne nit ñu texee di lañ mu ne te seenu texee di yàlla xam na ko bu wér lu siiw la fa yàlla te lu siiw la fa soppe yàlla yi te moom ci soppe yàlla yi gën a mag ci la bokk mu ne ma ñu ñu wàcce ma fi muy liverville ma am fi diir boo xam ne yàggul wa makastu fiha muddatan gayra tawila walam ara fiha man yatlubu llaha wala wala man yatlubu sabila ma am fi diir boo xam ne yàggul lool danañ koy xëy na estimé ci ñaari weer jëm ñetti weer waaye nee na gisuma fi koo xam ne kuy sàkku yàlla la wala kuy sàkku yonente bi sallallahu wala kuy sàkku yoon wu jëm ci yàlla ci laa fi soog a jógee nag dem ci beneen dun dun boobee nag moom lañ leen waxoon ci waxtaan yi jàll ne mooy maayom ba loolu itam ñoo ngi ko tukkandi parce que dafa am wuute buy am comme loolu moo baaxoo ci histoire histoire moom naka jekk noonu la waaye aussi it buñ delloo ci mbindi sëriñ bi itam ma des ci tënku ay preuve ci ne bi mu jógee Libreville directement maayom ba la dem parce que wax na ko ci boo xoolee ay yasmini laa andi jéewali ni mu ko toftalee état bi noonu la dëkk yi toftaloo li commencé Mbacke Bari ba ba xee ba réewum Galwaa nga xam ne mooy Lambarana fenn fu ci nekk tudd na ko wax na itam la nga xam ne moo fa xew te gis nga bi mu tuddee Libreville ba àggal wax la fa xew danaa ci ñëw léegi muy fii ñu ne nii dafa daal di wax ne ginnaaw bi nag daal di bind nag dégg nga saaqali xeyrillahu fii maa yomba maa sa aqal bi wa alal janba ñaareel ba ci gisaaw shakoor bi itam wax na ne bi ma jógee ci dun bii nga xam ne yàgguma fi lool gisuma fi kuy sàkku yàlla gisuma fi kuy sàkku yonent bi la fi jóge dem ci benen dun bo xamne bama fa deme amna fa juromi at ci bir juromi at yoyu ci la don jihad ak sama bakkan ba yàlla setal ma ci sama ay bi bop bama set ci wetch ci li tuddi ay ay mom ci walam ci akam te moko xam mok boromam bama muju nek di jaamu yàlla kesse di khadim rasulillah bi gëna a mag di khalilullah kharitu yàlla waye di habibullah waye di khadim rasulillah ak itam dégg mana di khalilam di habibam di soppeem di xaritam yooyu yëpp nee na foofu laa ko amee mu mu mu mu teg ne mu wax ci biir téere bi ne wa fi saaxili baxri tilka aljazirati waqaftu murtajilan wa fi irtijaali ma ashraktu wa ba nafaqtu dal di indi ay bayit ci biir bayit yooyu mu tudd ci baxra maa yoon ba wax ne ci tefesu géejug dun booba laa taxawee dun waxante géej ge di ko wax naan ko yow géej gi seedeel ne man jamu yàlla rek laa ba ba ba dem ba ba muy jeex muy wax naan baxra maa yoon ba di ko woon naa ko yow géejug maa yoon baa gi

jéemoon ko éliminer physiquement ba tax ñu ne woon dañ koy fetal euh, bi ñu ko defee ñu def ko bisub talaata sax la sëñ bi tudd wax ne fukki officier ak ñaar lañ dajale ak ki nga xam ne mooy seen kilifa nga xam ne moo leen jox ndigal bi ñu demee ba toll ci war koo def boo demee tribunaalu gànnaar bi nga xam ne mooy Ahmad Ibnul Hasan wax na ne moom bi ñu tollee ci war a def seen jëf ju ñaaw jooju dafa am poussière boo xam ne dafa muur tund wi yëpp ba kenn gisatul bi poussière bi demee gisatuñu sëriñ bi ñi ko doon jéem a sàkkal pexe ñëpp ñu gis leen fa idahum xaamiduun noonu la ko bindee ñoom ñëpp ñu ñu ñu faatu ñu tàggoog seen roo sëriñ bi fi mu ko fi mu ko firndee la mooy fi mu waxee ne wahaba lil wahabu fi sulaasa maa yuxjulul ashrata wa salaasa yàlla may na ma ci bisu talaata secret boo xam ne gàcceel na fukki officier yi ak ñaar yi doon jéem a jël sama ruux ak seen kilifa gi nga xam ne moo leen doon jox ndigal muy fukk ak ñett loolu fii la xewee woon ñi li ki dolli kuwaat mooy kamb gi nga xam dañ ko gasaloon kamb gi sax am ñuy wax sax ne kambuk sawara la woon te loolu naaru gànnaar bi wax Abdullahi Salim nga xam ne bind na ci iftaru sëriñ bi lu bari bind kimtaani géej gi andi na ko naarun te ajjaja naa sawara soo xam ne te ajjaja ajjaja gi Baye Fall ñoom ñi di garab xam nañ ne mooy sawara day bërëx di tàkk di bërëx ñu gas ko ba mu xóot jël dara teg ci kaw loo xam ne bu sëriñ bi ñëwee bu ciy teg tànkam rek muy surux ñu woolu ko pour mu jaar fi bi mu ñëwee ba ba jub ko yonent bi sallallahu alayhi xamal na ko ne ko foofu pexeem noona fi ne te day lor waaye bul nattab la demal ndax bokkul woon ci eh, lim signé woon ci contrat bi bokk ci woon deltu ginnaaw wala sikki sàkk wala werante mu daal di ñëw rek surux ci kàmb gi bi mu suruxee itam Cheikh Abdoul Ahad ci làmmiñam mu barkeel wa wax nañu ne bi mu laataan àgg suuf mala ul aala ñoo ko njëkkante ne ko dañu bëggoon nga jox ñu ndigal rek soo bëggee ñu génn la nga dem defi sa liggéey mu ne len waaw ndax da ngeen a ñëw pour dimbulé ma rek ngir seen baxuk bok ak lima yalla seen baxuk bop ak lima yalla bolé won ak yeen wala ndax da ngeen am digëlal yalla ñu ne ko dañu rek bëgg rek xet li la mu ne len amu len digëlal yalla kon man ngeen dem bàyyi maag sama borom lolu niru lol kérok bi Seydina Ibrahima diko namru sànne ci sawara wa te jibril ak mom sawara wi ne ko soy bëgg ma lay génne mu ne ko su fekkee yalla la ko digal bismillah su fekkee yalla digalu nga xam da nga bax rek bëgg ma rek tanga diko def bul dox sama digganteeg sama borom kon bàyyi maag sama borom suñu borom wax ak sawara wa ne ko yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim sawara bi nekkal bis ni ki tey di sedd di di jàmm wax nañ sax ne bu bu yemoon ci baatu sedd rek kon sedd ba day metti bay lor ibrahim waaye daf caa teg bardan wa salaaman na nekk sedd bu ànd ak jàmm ci ko ibrahim sëriñ bi itam keroog xam buñ buñ fàtte ne nattu yi nattu yi yonent la yéen si salaa salaam ne woon na ko ci jàkkee daal xudus ji ñaar téeméeri nattu yi ak juróom ñett fukk ak juróom yi tolloog aaya aaya suratu baqara nattu yonent la te natt bu ci nekk mën naa yóbbu ak ruux kon nattu ibrahima bi moo feeñoon fii ci montagne sainte bi nga xamé ne nag yàlla dogal dara rek mu ne ci kambu gi di jaamu borom suñu borom de nga suñu borom fegal ko fe maanaam sawara wa ndax nar bi tek da ci tek ni hal hal yunajji tarih bihi ila illa munajji khalilillahi min naari ndax ki xetli serigne biñu ñu sànni ci ci kambuk sawara gi du kenn kudul ka xetli won ibrahima ci sawara wa mom rek la hal yunjit tariha bihi at tariha fofu moy serigne tuba moy mi ngi sa kiñ kiñ ñu sànni ci kambuk gi ku koy sowe illa munajji khalilillahi min naari kudul ka sowe won ka xetli won xaritu yàlla ba ci sawara wa sun borom defal ko fi ki kiimaan ndax serigne bilaal wax ne ci làmmiñam nee neena bi mu nekkee ci kàmb gi di def ab liggéeyam wala diir bam fa am ak nu mën tollu amul lu may jëmmatee ci ay mbagam génne ko ci biti ne ko demal ci sa liggéey ne na bi mu geesoo gis muy soxna buso mi nga xam ne mooy ndeyam di soxna jaara muy ñaareelu feeñu boo xam ne feeñu na ko ko benn ba ci néegum dakaru ba ca jël Jóob ba bi ngi des fii ci mayum ba ci li nga xam ne xam nañu ko loolu sëñ bi laa na ko kon bu ci yemoon rek mu doy mais Sëriñ Tuubaa da ko bind ci bay tënk ko dafa xam ne radama rabbi maa aduwiya xafar li darari wa sanani amman nafar yàlla sakk na mëdd na kambu gi nga xam ne moom la ma sama noon maanaam gasaloon li dara rii pour lorma bi mu ma ko mëddalee itam nag la dox sama digganteeg lépp loo xam ne pexem yéefar la waxaat na ci yeneen bayit ne ila nasrina qad saarau ma xuyulihim wa xaafa al ida minhum wa maalu ila salab nee na ahlu badrin ñëw nañu fekk si ma di ma jàppale si ci di ma dimbale si gaaw nañ lool ñëw di ma dimbale si noonu yi gis leen biñ leen gisee ñu ragal leen ba tax ñu ne kon nañ jàmmoog yow nañ maroog yow loolu ci kintaan yi fi xew la bokk فين أهل بدر قد تحسن تبعد وح يسر للمنع لدى لبر ولي من قاد لي ما غاب عن كل ولي لي قاد أهل بدرن الأسودة من زهزه الواشية والحسودة يقود لي حيث أكون الله تبشر لا إله إلا الله تأيس من الله بي يجب في الخوة تلولا ما كن نتل البطن بندقو نتلكو أي نار جنار بنكو لاجي أهل بدر ينلن من ملايكة إلى كان لاجي يكون نخ يرن تبعي ونكسن بير من مولن جيتون ينكو تتحون يفنفا mu ne parce que booba noon yi dañoo jéggi dayoo ci lor gi ñu ma doon lor def ma ci seen biir may kenn ci ñoom ñuy tux di ma buusu di ma xër di naan sàngara di ma buusu ma muñ ko ngir xam ne malaayika yi nekk samay mbagg ñoo nekk seen i mbagg li feeg ñu ngi muñ lor yooyu war naa ko mën a muñ yàlla fayee ma benn bis ñu génn doon dem ci seen i camp d'entraînement yàlla muri waxtu suba teel yàlla muri kiiraay yi doxoon sa diggante ahlu badrin ñu jàkkaarloo ak ñoom wa xaafal ida minhum ñu ragal leen wa maalo ila salam bi daal di jàng jëm ci jàmm ci lañ tàmbalee di woyofal waaye teewul bi ñu demee maayom ba xew-xew yi méttiwaat na tar na bi ñëwee lambat na mu gën a tar ba ni nga xam ne noonu la liggéey ab liggéeyam bu wax ne lillahi qad wasaltu inda galwa wasaana nii amma yajuru balwa fa xeetu galwa laa àgge ci yàlla yàlla fegal ma nattoog balwa ak lépp lu lu xeetoog musiba wax ne jihaadiyan qada wa bayan rabiha wali siwaaya kullu kalbin nabaha sama jihaad yi ma doon jihaad jeex na ci géej gi sama njaay tono woona bépp noon noon foofu baatu kalbu la jëfandikoo foofu wala si waaye kullu kalbin nabaxa bépp xaj buy baw dootul jóg jëm ci man jubluwu ci nag xaj yi ñu xam xaj yi baw waaye kinaaya la gu leer goo xam ne am na ñu tax muy wax te ñoo ñooñu ku dund ci réew mi gis leer gis gis dégg nga nasaraan yi nga xam ne ñoo ko fi indi woon da nga xam ni sëñ Tuubaa bugg a wax foofu mu ne sama sama sama jihaad jeex na sama njaay tono woona bépp noon bu jógati jëm ci man yàlla daq ko dootuma jublooti askuruhu kon maa ngi koy sant ndax waqaada lii abdaala kama kafaani alxarba wal jidaala fegal na ma xare fegal ma xuloog xeex la ma jaayoon ca maa yom ba ñaar fukki yaag juróom ñett fanweer ak ñett laaj kax yooyu yëpp yàlla indil na ma yum ko remplacé yoo xam ne ci laay lu maag sama njaboot ak ku ma yaakaar te loola ba àjjana du jeex bu tëkku day jógee ci yàlla taxuma koo jóg su ndigal manam tere lu jóge ci yàlla dénga nga taxatuma ko jóg jajj gu jóge ci yàlla taxatuma ko jóg sama dundu ba àjjana aid la lam yanhuni zajrun wala waidu wa umri ila aljinan aidu lol dal moy li nga xamné ma dess ko teunk fi ci Libreville ci montagne sen wa akhiru da'wana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kon serign bi yagul fi di Libreville ndax gouverneur bi nga xamanteni bi moo doon gouverneur bi fi nekkoon doon na jot ay rapport yu bàyyi ko ndakaaru yoo xamante ni tiitaloon na ko ba tax na sëriñ bi bi mu ñëwee Libreville yàggu fi dara rek mu daal di koy jàllale sëriñ bu Ka wax na ni bu mu ñëwee euh, gouverneur bi daf ko ni juróomi weer laa dese tey ci réew mi ndekoon dinaa la yor juróomi weer laa dese tey ci réew la yor ne man nga yow mii Cheikh Bamba ko yàlla mooy saa wéttal Muhammad Rasul mooy saa wattal kon moom gouverneur bi lan la def dafa daal di jël sëriñ bi jàllale ko ci koo xamante ni bii ab sénégalais la woon ñu doon ko wax Duudu Mambay te turam dëgg-dëgg di Mambay Fara Biram loo doonoon chef de poste bi nga xamante ni bii moo nekkoon lodima sëriñ Moussa wax na ni keroog la ban ba wàcci postab londima gis bi ni song yow du yor di leen duma foofee la fekk kañu naa bali isa mu naa ko yaay bali isa iblisa mu naa ko may balis xaddu waañ la danaa le dimbili sa jaam waañ la moom Dudu Mbaye moomu lu nekk won na ko sëriñ bi foofu dégg nga sëriñ Moussa mu wax ni. na di ko sëriñ sotti comme ndox mu def ak sangara buusugum tuux keroog la ban boolu si di maabo ne ko mo ndox mu la ak saabu mooy tukkulóor ba daa commandé poste ba ban ba taxon ba fatul ca peste ba moko fa da rotal di di ay satalam di doxay am di joxantey salaam du ma may ay ko rotal ban ba ngir bon nga kañaan nga ma yon ba ma naa ko dee ko sowi bis bu nekk ak setal am nay mar di xiim bu lekk si dee nga naa ko lépp luñ ma fayati ci sama moom laa ko faf la duudu mere sii di maa boo dal ko fetal moom moy ba dal boobaa bu ñu ànd dem layoo ji kër gouverneur ñu déplacé duudu ban ba moy góor mu ñaani dappel waaja ba interdit ñu daal di koy lisaase njool ma semua maat na gajeren kumandang ba na mu dee fu mu toll dang-dang Cheikh Ban babak fab yónni Sidi mabo mu di fa kon Sidi Maabo boobu nga xamante bi bii seq na loolu ak eh, Duudu Mambay moom dafa muju jebulu ci sëriñ bi sering bi nag bi mu bàyyi ko Libreville ngir ñu diko yobbu Mayumba bar bi ngeen jàkkaar lol di Cap Lopez di Port Gentil gi nga xamanteni bi tay fi sëriñ bi wàccoon Fofu julli ou pétrole bu Gabon moom ngeen Fofu Lenek, nii Didek Bobu, du di Port-Gentil Moi, capitale économique bu Gabon kon fi Sidi Mabo surveillant bi nga Watu, ni moo Lol, bi ngeen jàkkaar te bi bi ba ci loolu taxoon na ñu dakk ko waaye suñu borom may ko lu gën loola ndax comptoir commercial ñoo ko mujj muy liggéey euh, foofa kon sëriñ bi bi mu ko euh, Cap Lopez mën nañu wax ni ci weeru avril 1896 ci la sëriñ bi ñëw Mayumba ndax su ñu ci archive de France euh, bon de paiement yi nga xamanteni ci lañu daan fay euh prisonniers yi manam déportés yi dinañu gis ni ci wéru avril bon de paiement bu serigne bi ak bu sàmbalaw be ñoom la ñu boole bi mu ngi amone rent bob fukki dërëm la woon buñ ko daan jox par wér waaye moom musta laal euh, xaalis boobe barab bi nag di Mayumba yu bare bari xew na fi ndax jàmbaar yi Serigne Touba ja di Serigne Modou Lo Dagana fii la fekk Serigne Touba dégg nga Serigne Moussa Ka mu ni ku di laaj Cheikh Modou moom Dagana ba mu laa gisee ak Cheikh Bamba booba sori na xëy na kokki guy bisub talaata namm ca géej ga ba ñu na xatmaata ba weer wa dellu see déwén ak bis ba la doog a seeru Bamba ngir pas-pas ba kon Serigne Modou Lo Dagana fii la fekk ku tedd ki Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba barab bi ngeen gis itam fi la sëriñ bi woore weeru koor wi nga xamante ni bu dog jotee amul lu mu dogee bu xëdd jotee amul lu mu xëddee bu dog masaana jot xobi garab yii ci lay witt bu ko yéeyee wanaasu ndox ma moom la daan dogee kooram kere bi nga xamante ni bii Shahbaan mi ngi koy tàggu muy séentu shahru Ramadan di weeru koor wa la jël xalimaam moom ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba lii la teeroo weeru koor wa أخير ديف أتى بالبشر والمدد أهلا وسهلا وترهيبا بلا عدد يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد أهلا وسهلا وترهيبا بلا عدد كربين خمنتني بيتم ganam googu mu doon teeru di weeru koor wa mat na ba mu feeñee lii la jëlaat xalimaam tàggoo ko shahru ramadan mubarak fi ci Mayomba nag li ñu ci gën a ràññee mooy humidité boo xamante ni bii ànd na ko ak taw bu baree bari ndax xam ngeen ni moom fii amu fi woon néeg ci mbaar rekk la nekkoon léeg-léeg taw ba ci kawam la daan taw li ngeen jàkkaar lool mooy ñetti at yu njëkk yi sëriñ bi njëkk a def ci Mayomba muy 1896 1897 ak 1898 fukki weer ak ñaar tubaab yi taatal nañu natt nañu taw ak tàngoor bi nga xamante ni bii mën nañu wax ni ci kaw ku tedd ki xadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba la ko def ca weeru janvier ba température minima bi 23 virgule 68 la maxima bi di 31 virgule 25 nombre de jours yi mu taw fukki fan ak benn la taw ci weeru janvier la mu fa taw ci ay millimètre toll na ci 216 virgule 16 muy ñaar téeméeri millimètre

fukki fan ak ñet la taw ci wéru mars taw na deux cent quarante neuf virgule cinq millimètres muy ñaar téméri mm deux cent quarante neuf virgule cinq millimètres muy ñaar téméri mm ak ñen fukk juroom ñent yu tombal juroom weeru avril wa température bi gënon na ndaw mo don vingt trois virgule vingt six maximum wa don trente deux virgule zéro deux fukki fan ak ñent la taw ci wéru avril wa taw na fa trois cent deux virgule vingt six muy ñetti téméri millimètre yu tom ak ñaar yu tombal ñaar fukk ak juróom-benn weeru mai température bi gënoon na ndaw moo doon 23 virgule 0 bi gënoon na tàng doonoon 31 virgule 25 juróom-ñeenti fan la taw ci weeru mai wa 166 virgule 6 millimètres la ci taw muy téeméeri millimètre ak juróom-benn fukk yu tombal juróom-benn.

28,8 virgule 8 moo doon maximum bi benn fan la ci taw 5,6 virgule la ci taw weeru ut wa température minimum bi mi ngi doonoon 20 virgule maximum bi doon 29.13 point ñeenti fan la taw ci weeru ut 20,5 virgule la taw di ñaar fukki millimètres yu tombal juróom weeru septembre wa température minimum bi mi ngi doonoon 21 virgule Maximum, il donne 29,60. Faut qu'il fasse un nient, la taille, septembre 1896. Euh, la moufata, qui un millimètre, donne 179,8. Di leur avec du rhum, il faut qu'il a octobre, la température minimale, il donne 22,3. Maximum, il donne 29,91. Il faut qu'il un nako la taille, octobre, la photo fa taw ci ay millimètres doon na trois et di ñetti ak juróom Vers fuk ak ben yu tombal ñaar fuk ak novembre température minima bi 22,31 na maxima bi donon 30,74 ñaar fukki fan ak ñett la taw ci wéru novembre waaye température ba mou ëpp. ñaar fukki fan ak ñeent yi mu tawoon ci octobre ndax ñaar fukki fan ak ñett yi mu taw ci novembre taw na fa quatre cent trente cinq millimètres te bu ñu jàppee ni tey ren ci Sénégal ci Daarul Muxti nawet ba kenn ràññeelewul ni nawet bu baax la te la mu taw ci nawet bi yépp bu ñu ko dajalee euh, quatre cent un virgule sept millimètres la ñu gis ni kon la mu taw ci weeru novembre woowu boo dajale woon ab nawet ci Sénégal lamu taw ci wenn wër wa rek mo ëpp limu taw ci nawetu Sénégal bi nga xamanteni Sénégal yépp d'accord nañu ni baxna wëru décembre wa euh, température minimum bi mi ngi doon 22,50 maximum bi doon 30,6 fukki fan ak ñent la taw ci wëru décembre 1896 taw na ca 312,2 mm tombal ñaar di ñetti témèr millimètres ak fukk ak ñaar yu tombal ñaar moom la taw ci weeru décembre. kon at mi yëpp di fukki weer ak ñaar température moyenne bi mi ngi doonoon vingt deux virgule trente et un maximum bi doonoon trente virgule cinq total maanaam la mu fa taw ci ay bis ci at mi doon na téeméeri bis ak fanweeri bis ak juróom-ñett la mu fa taw ci ay millimètres. te ngi ko taw ci kaw ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba doon na 2392 virgule 02 nawetub Sénégal bu baax du ëpp 500 millimètres na wax naa leen ni ren nawet bi ca Daarul Muuti gëm a dëkk dem naa ci chef serre la mu fa taw ci ay millimètres doon na ñeenti téeméeri millimètres ak benn yu tombal juróom-ñaar at moomu nag taw na fa ñaari junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar yu tombal ñaar te yooyu yépp mu ngi ko taw ci kaw ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba ndax amul woon néeg tubaab yi wax nañu ni li leen gënoon a jaaxal mooy bu masaa soob di taw ni muy jële gaal yi dugal ko ak bu sewetee ni mu koy génnee di tàmbaliwaat mbindam te muy bind ba mu tàmbaliwaat sóob rek ci lu gaaw a gaaw a gaaw lay fat gaal yépp kon li gënoon a léjal sëriñ bi foofu bokkoon na ci taw bi nga xamante ni bii dégg nga sëriñ Moussa Ka wax ni foofee la Bàmba taw te woon ba yol ma suuxal ko moog yéreem ya diig ca wal ma lu dul yi fi quraan yi tooy ne keroog ba yàqu bàmbaay waane foofee la doon wax ne nag kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu lahu walilaahi bihi sakkantu moom la waxoon keroog ba muy fatamtu bayit wi moom ak xasid ak jaawartu kon ku tedd ki xadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba at mi mu njëkk a def foofu ci Mayomba lii la taw te taw boobu yëpp mu ngi taw ci kawam am na bis boo xamante ni bii dafa dem ci nit ni ko dama bëgg fu ma fat sama téere yi mu ni ko waañ wi moo fi nekk boo ko mënee bale moom moo ko baleel boppam ci loxoom yu tedd ya ba mu noppee foofee fa la fat téere ya ba moo tax téere ya tooyut kon ci climat bi nga xamante ni bii moo nekkoon foofu lii mooy taw bi nga xamante ni bokk na ci li gënoon a metti ci bi fi sëriñ bi nekkee fi ngeen jàkkaarloo itam ba tey fi la sëriñ bi defoon ñeenti bant defoon ko jàkka daan fa julli te kilifa armée ba ñëw tasaare jàkka ja dégg nga sëñ Moussa Ka ma wax ni fekkoon na Cheikh Bamba defoon fa jàkka fa penku quartier ga mu jublu Makka su quartier gay liit Bamba dal di noddu ñuy maaj mu kàbbar noonu far ko gedd capitaine ba ñoo ni Bamba jàkk xewu fi bul nu xatal sa jullikaay bi xaju fi quartier ga wëq ñëw tasaare jàkka ja njool màkka ñëw fa ni ko am nga maxraja njool màkka wan na ko ay xajaayib may ko ndigal mu taalifaat mawaahibu ba mu bindee salli banaa wa sallim njool màkka tontul ko alal mukallim jibrilu tegtal ko wa duru yasim pour yàlla tàmpeel ko jumaa yi boppam danga tabax yaari jumaa ci réew ma te lee nga dellu dal di yeesal géew ma da nga tabax jumaa ju réy fa njurbel kenn du ko buddi kenn du julli nërmal da nga tabax jumaa ju réy fa Touba te nga dem Daaru Salaam ak Touba loolu fii la xewoon fii ci maa yomba itam révolte bi nga xamante ni bii déporté yi defoon nañ ko mooy fipp bopp la ko waraloon mooy la ñu leen daan fay ci par dafa am ku ñu daan wax Samba Camara doonoon agent spécial bu Mayomba moom moo détourné woon xaalis ba lekk ko ba loolu taxoon na ma ndungu mbóoj ak euh, Samba Lawbe Penda doonoon ex ba Jolof ak Samba Àllarba fipp woon nañu fii benn mutinerie euh, Doudou mbay wax ku tedd ki xaadimu rasul ci Ahmadou Bamba ni ko yaa leen ko digal loolu nag il faut ñu sanctionné la daal di koy jël boole ko ak sàmbalaw be dugal leen ci gaal yóbbu leen ci aw doj wu ñuy wax wiir wiir wiir wiir boobu nag daf cee bari ñu dañuy wax dun bu tudd wiir wiir waaye doj wu tudd wiir wiir la dégg sëñ Moussa Ka mu wax ni ñu sànni leen ci doj wu tudd wiir wiir sàmba di weer weer yi sëriñ bay saf weer doj woowee wax nañu ni keroog bi sëriñ bi ne sàmbalaw be gëmmal ahlu badar bi mu àndal ñoo fàdd xeer wa mu toj loolu moo tax ba léegi kenn mënta retrouver trace yi xeer woowee euh, jële nañ ci ñi nga xamante ni bi ñooy naviguer muy commandant de bateau yi wax nañu ni barab booba ba léegi boo koy traversé ak bateau euh, radar yi bateau bi dafay euh, brouillé wu kon foofe la ñu yóbbu woon sëriñ bi te tubaab ba ko yóbbu woon bi mu daataa dellu si fekk na sëriñ bi ak sàmbaloo bi ñoom dellu si fa ñu leen jële woon àll bi ngeen gis itam di Mayumba document yi ngeen jàkkaar lool tubaab bi ñoo ko fi def benn docteur bu ñuy wax Divigneux juróomi at yi fi sëriñ bi nekk moom moo doon saytu àll bi ngir colon yi nga xam dañ leen di affecté ci poste yooyu docteur nekku fa mu def ko benn guide tuddi ko guide médical bu Congo française ñu di ko jox docteur yi ci biir guide bi dinañu gis ni mayomba garab yi fi nekkoon am na ci yooyu dég ya wala xob ya lu ci laal moo jaan ju la matt ñooyam jaan yi fi nekkoon itam ak ay jiit ak eh, ay araignée te mooy li ñuy wax eh, jargoñ ak ay mbott yoo xamante ne bi buñ la mattee moo jaan ñooyam mbott yooyu ñu ngi leen di wax ay crapaud bifo eh, bifo kon document yi ngeen jàkkaar lool mooy firndeel garab yooyu nga xamante ni nekkoon nañ fi ak raamat yooyu nga xamante ni bii itam nekkoon nañu fi li ngeen jàkkaar loolu itam euh, le directeur général de la compagnie euh, française du Congo occidental te nekkoon fii ci Mayomba doon na fi jëlee ay jaan ak ay ak ay yenen insectes don ko muséum d'histoire naturelle bu Paris nga xamante ni fa lañu don tanné jaan yi gën a bon dangar jiit yi gën a bon dangar kon mën nañu wax ni raamat yi dàq matt te gën a bon fii la ñu leen daan sélectionné ci Mayomba ngir yóbbu leen ci muséum euh, d'histoire naturelle bu euh, Paris kon ñoom tubaab bi gisoon nañu ni tubaab boo xamante ni da nga war a séjourné fii ci Mayomba wala Gabon am na waajtaay bu war ci yow ndax docteur bi mi ngi wax ni nit ki bu jógee dem fu mu dëkkul mook njëmbat lu ñu jëmbat ba noppi déplacé ko moo war a yem dañ ko war a taxawu di ko euh, suuxat waaye ñoom ña nga ca jublu woon euh, tubaab yi waaye noonu ke ñu jële woon fii yóbbu ko fa njëmbat la koo xamante ni bii sunu borom moo ko doon euh, suuxat ndax ma nga foon ak jiit ya ak jànkalaar ya ak jaan ya waaye mën a luñ ko woon dara kon loolu taxoon na ba déporté politique yi nga xamante ni bii dañ leen daan yóbbu jàpp leen yóbbu leen Gabon nature bi ci boppam rek mënoon na leen a faat bu fekkente ni du nit moo leen faat kon jamono yi fi sëriñ bi nekkee di ngeen jàkkaarloo ak euh, document bi ñi ñooy déporté yi ñu bàyyi ko woon Sénégal diggante 1890 ak 1900 bokk na ci ñooña Xaali Biram cosaanoo woon Saloum Mamadou Abdoul doon góor yàlla tukkuleer cosaanoo woon Fuuta Ñoxor Mbay euh, cosaanoo woon Kayoor ak euh, ma nungu Mbóoj cosaano woon waalo ak euh, sàmbalaw be pend doonoon buur ba jolof ak euh, demba àllarba ak euh, mamadou alpha moussa ñu doon ko wax le mahdi de ya nga xamante ni bii moom la ñu njëkk a atte ci conseil privé ci ndar bañ ko attee sëriñ bi lañ ca teg Mom ci ay procès verbalu gént ci lañu sukkandiku ba jël ko fi nga xamanteni bi moy Gabon te mu nekkoon ci Mayomba. ñu wax ay déporté de droit commun mo doon Samba Camara Boubacar Seck ak Kelly Diallo pour du Sénégalais rek lañu fa daan na fa ay déporté yo xamanteni leen daan jëlé bokku na ci ñooñu euh, Yamara ak ku ñu doon wax Gédou ak ku ñu wax Félix euh ñoom ay dawmee lañ ni a déporté woon yóbbu na fa ay guinéen mu Samori le roi di Wasulu ak wax Saratieri Mori ak ñeenti soxnay Samori ak euh, set domestique am muy ay surgaam ak ay ñu daan ni nit ku la chinois japonais la. ñi nga xam ne ñoo doon déporté yi bàyyi ko woon Côte d'Ivoire itam moo doon ku ñu daan wax Décou ak ku ñu daan wax Diomati ak ku ñu daan wax Alade ak Soussou Kondelto ak ku ñu daan wax Samogelo Antonio benn naar boo xamante ni bii déporté euh, mauritanien la woon ñu doon ko wax Sidi Mokhtar mu doon doonoon naaru euh, sa sénégalais yi nga xamante ni ñoo fa nekkoon doon ay wala ay ci doon Lamine Diop doonoon traitant ci Libreville 1901 Mamadou Sy euh, Sara Diouf doonoon maçon Lamine Diaw mi nga xamante ni remplacé Sidi Mabo mi ma doon wax ci des Lopez ci gannaaw bu ko ndax jébbalu nga mu jébbaloon ci sëriñ bi ak daa ko jàppale ci décret bam ñi ngi ko signé ci fukki fan ak juróom-benn ci weeru août ci atum 1900 ñi ñooy sénégalais yi fa nekkoon te nekkoon ci police ba ku ñoon wax Toumane doonoon Toumane doonoon ab garde régional Amadou Cissé ak euh, Mamadi sàmba ak Boubou Bandiougu Yoro Diop Yoro Demba ak euh, Ngore ngoom ak euh, ku ñu naan wax Birama Fall Pape Sissoko ak Jibril Fall ki nga xamante ni bi itam moo doon chef de poste doon commandant à l'époque di Mambay Fara Biram Lo ñu gënoon ko xam ci Doudou Mambay ak benn comité douane bu ñu daan wax Blaise Diagne ñii ñooy gouverneur yi nga xamante ni bi ak euh, commissaire général... yi fa nekkoon at yi fi sëriñ bi nekk muy 1895 ba 1902 fukki fan ak juróom ñett ci weeru janvier 1895 ku ñu doon wax Dalhousie Albert moom moo fa nekkoon comme euh, gouverneur ñaar fukki fan ci weeru mars 1897 euh, moom dalu Albert mon fa nekkoon ginnaaw bi nga xamanteni ni kuñ doon wax Savro doon na assuré intérimam ba mu dellu si ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci septembre 1897 Félix Lamotte mi nga xamante ni doonoon na gouverneur fii ci Sénégal te nekkoon Ndar moo fa nekkoon ñaar fukki fan ci weeru août 1898 dalu mi dalu Albert moo dellu siwaat ngir assuré intérimu Lamotte ñaari fan ci au décembre

gis ngeen église yi nga xamante ni ñoo nekkoon ci Mont Fleury ndax montagne bi nga xamante ni bii fii la sëriñ bi nekkoon église bi nekk fi gis ngeen cloche bi nga xamante ni bi sëriñ bi ñëwee ba ci déwén si lañ ko fa indi ci 1897 mooy cloche yi nga xamante ni bii ci la waa làbbe yi daan euh, def seen li ñu wolof wax jóoloo li moom mu nga fa ba léegi Euh, table bi ngeen jàkkaarloo itam muy table boo xamante ni bii ci marbre lañ ko defaree wutal ko ay tànki weñ euh, ruy bi dafa commencé lekk tànk ba moo tax date bi feeñul waaye ci 1896 la fi def table bi booba ba léegi euh, randuwul garab gi itam fi la fekkoon sëriñ bi kon daal fii ñu jàkkaar barab bi mooy barab bi sëriñ bi nekkoon kon dañuy ànd ak sëriñ fallu Bousso mu ñëw ak nun ci juróomi at yi nga xamante ni bi Serigne Touba am na ko fii ci Mayomba. Euh, jërëjëf euh, Serigne Babacar Sylla ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba euh, ñu ngi delluwaat di sant yàlla mi ñu may ñu ñëwaat fii fi Mayomba ci béréb bu tedd bi nga xam ne moom lañ jàng moom ngeen di gis nii ci suñu ginnaaw bii nekk suñu defe naa ñetteel bi yoon ñu di fi ñëw di topp jeexiti sëriñ bi bi ñu fi mujjee ñu ngi àndoon ak góor yàlla Cheikh Mahamadul Murtada ci 2000 mu amoon solo lool ren ji itam taxawaay boobu it ñu amaat ko ci ndigalal kilifa yi nga xam ne ñu féete Touba ni nga ko waxee Mayumba euh, dafay étape bi nga xam ne wax nañ ne moo gën a am solo jàpp nañ ne moo gën am solo ci étape yi sëriñ bi def ci géej gi ndax ci la fi fi la gën a yàgg kon mën nañu wax ne lu ëpp ci lim liggéey ci liggéeyam bu te boobu fi la ko liggéey parce bi mu jógee Sénégal ñu wàcce ko Libreville defu fa lu mat ñetti weer wala lu ci luy tolloog moom ñu jëlee ko fa indi ko fi fi maayum ba euh, loolu moo ko bindal boppam boo demee gisaaw Chakour Latouf fii jawaabi Abdul Latif da ngay gis muy wax ne bi ma agsee Gabon gu siiw te waa réew mi di ñu texee xam ne seenu texee lu siiw la fa yàlla ak fa ay soppeem euh, muy Libreville awma fa diir bu bu yàgg lool ñu jël ñu ñu ma fa ndax gisuma fa ku kuy kuy wut yàlla wala kuy wut yoon wu jëm ci yàlla ñu jëlee ma fa yóbbu ma ci beneen dun bo xamne dun boba def na fa juromi at bu yemon fofu rek kon danañu sigi sak ba xam ban dun la lambarana wala maayomba waye ci bir nettali mi muy sax gem sax ci dun boba dafa dem ba ci kanam mu wax ne ben bis taxawna ci tefesu geejuk dun boba ci tefesu geejuk dun boba di wax ak geejji diko wax nan ko aya bahru wahid la tusallis fa rabbuna taala an at-taslis akrim bihi rabbah ci biir bayit yooyu mel ne kuy wax a géej gi naa ko yow géej gi wéetalil yàlla te bul bokkaale bul bul bokk ci ñii nga xam ne ñoo fi nekkoon di ay nasaraan di eglise di ñooñ église bi di wax ne yàlla ñett la yow bul bul ànd ci ñooñu waaw yow wéetalil yàlla ndax yàlla ëpp na di nekk ñaar walla ñett kenn rek la ci biir bayit yooyu mu tudd ci géeju maayumba moo tax ñu xam ne kon juróomi at yi mu def ci lu ëpp ci ci fi fi mu gën a yàgg ci géej gi mooy fii fi maayumba kon maayom ba étape la bu am solo boo xam ne li fi xew lu bari la am na yoo ci junj léegi ma des na ndax lu ci baree bari ci mbindum sëriñ bi la wala ci loo xam ne moo ko nettali eh, borom xam-xam yi bind ci moom ku mel ne sëñ Lamine Diouf daga na nettali ko. Eh, wax na ne fii nga xam ne fi la defoon néegam bi mu mu jàkkaarloo ak eh, église bi nga xam ne léegi ñu ngi gis. li nga xamne moy sen colosse bu mag bi nga xamne 1897 lañ ko fi def te sëñ bi mi fi ñëw 1896 nga xamne jito na fi colosse bi kon bi xëy lu toll lu toll ci benat euh bi nga xamne nek na fi ak ñom nek fi ak soldat yi def fi negam di jamm boromam di liggey rasulullah sallallahu alayhi wasallam nim ko waxe diggante zikkar ak shukr ak jihad mana tuddu yàlla ak sante yàlla ak jihad ak bakanam ndax nee ci bir juróomi at yoyu ci la jihad ak sama bakan بس يلا تقل ماكسما أي بجمو بحننا وفي تلك الجزيرة أراني ربي عيوب نفسي كي كي كدن بوبتي ما يومبا فلما يلا وني سما أي ببب وعي وطهرني منها مرحصل ما كبام سد ويك بأمت ما بين أيب حتى سرتو عبدا لله وعي خديما لرسول الله بما موجي نك دي جامو بيالا كسي وعي دي لغي كتو ينتبه صلى الله عليه وسلم نيم في نك وون موي جامو بروم ak tag yonent ak ci toggoo ay nattu ak i coono ni nga ko waxee benn bis nee na ma samp samay bant ngir def ko muy sama jàkka fa seeni fii jaamu sama borom di ko suñu musaaga di nettalee bu ñuy su quartier géeg li Bamba daal di nodd waaw noonu la demee sëñ bi boo boo xamee ne ñu ngi tëgg seen kolos moom muy mooy noddal boppam li xaamal boppam jullil boppam bi mu defee ñeenti bant yi nag def ko mu nekk jàkkaam def ko ci buntu néegam fii tubaab bi commandant bi ñëw ko fi jàkk xewu fi ndax da bëgg influencer sunu tub sunu euh, soldaar yi ba ñu gëm leneen wala ñu def seen bopp leneen léegi da nga koy dindi sëñ moom du xëccook ñoom tubaab bi santaane ñu buddi bant yi biñ buddee bant yi am na benn Sénégal bu fi nekkoon bu ñuy wax Yelli Sey ak soxna soxnaam Aminatu Sey fii la ne woon di fonctionnaire dëkk Ndar yàlla dogal mu bëggoon sëriñ bi soxna si bëgg sëriñ bi lool donte sax sëriñ bi wax na ne euh, bëtam mësta tege ci soxna si lu dul keroog bi mu mu di ko jullee fii fi maay ba moom soxna sooso te te daan na defal sëriñ bi loolu di ko yónnee ci ci yi muy soxla euh, bi nga xamee ne nag euh, tubaab bi di euh, dindilu na bant yi yëlli sëy moom nag ñëw di xuloog tubaab bi di ko wax naan ko li nga def du yoon ndox ki bant yi mi ngi ko def ci buntu néegam def ko ci yoon wi kon war nga ko bàyyi nee na ñuy xuloo diggante timis diggante takkusaan ba timis sëñ bi neen waxtu bi nga xam ne ñu ngi xuloo ci seen xuloo boobu ba nit ñi ñoo dox seen diggante nda kon ñu xeex noonu la ko waxee man maa ngi bind qasida go xamne sun borom mo jox ndigal ma bind ko di qasida gum tënki ay alquran bi ci suratu nisa fi yàlla di waxe nan rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahliha wajal lana min ladunka waliyan wajal lana min ladunka nasira qasida gi moy qasida gi raditu an il mawla nee bi nga xamé ni maa ngi koy way di ci wetal yàlla di ci tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba aksi ci beuy bi muy bëgg wax la haktub salatan ma'a salamin bi alihi واصحابه وجعل به مسجدي رحبه يعني فوفا نك لما يالا خمالني سنيان نونغونا سي نينت ييغا سامبون في دا نان لاكو ديفال اي جمعه جن جي تي توبا لاي نيك تي تي نياريم لاي نيك موي جيتو جي ديس تي توبا لاي نيك ا اه، تيب ليغي ليغي بي جيخ nga delu wat ci rewma yalla dogal bi lolu amé mu daldi bekk xamné luko yalla dig rek amna fekk ci ci muwahibu bi mi ngi junjlu mel nonu ni waxna inni bi madhi ndax fi lako muwahibu bi ci ndigal rasulullah sallallahu alayhi wasallam inni bi matxi aayantu ribhi qad an wunuchi ma al binaay ci tag rasulullah fi fi géej gi lama yàlla woné sama bénéfice bi amé ci ligéy bi won ma won ma ci itam sama fajuk aaju ak sama tabaxub jumaay jumaay tuba ak jumaay jarim Njaaréem mu dal ko kon jumaay ji amna mu dal di bég jàpp lola motax bi nga xamé ne mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi nettali mi ngi retracer état bi géej gi ak xew-xew yi ci ajee sabilillah bi bi mu agsee ci état ma maa yumba bi dafa wax ne saaqa li gayri llahu fi maa yumba maa saa qalbiya wa alal janba euh, li ma naqare woon ci sama xol yàlla dàqal na ma ko raxas na ko ba mu set ci maa yumba loolu bi mu koy firil borom xam-xam yi ko doon laaj dana leen mooy bant yi ma sampoon fii ci sama buntu nekk def ko muy muy jàkka te tubaab bi buddi ko da metti woon parce que boobu moo taxawoon tax taxawaayu juma tubaab ak njaari mag yëpp ci moom da metti woon lool waaye comme du fayantoo bokkoon na ci contrat bi mu signé woon ak ñoom bi luñ la mën di def bu leen fayu bul bul bul bul fayu bul jàmbat bul mer bul bul def dara euh neena loolu ko nakari won ma waaye suñu borom dakal na ma nakar woowa ci may ma juma wa a'la al janbaaji neena moy na limi tek ci arab moy yëkkati samay samay wal yëkkati samay wal moy lan moy yëkkati yëkkatil na ma ay soror soror yo xamne moy mooy soroori juma ay xeeti minaara moom yenn yi benn bi ngi njaarim benn bi mi ngi tubaa loolu moom la sëñ Madu Lamin firee bayit boobu nga xam ne woon ne ci ay sa te nee na sëriñ Tuubaa ci mm-hmm. sey moom pour jeexal ci xisa boobu bi nga xamee ne nag sëñ bi ñibbisi ne ba dem njaarim yëlli sey dafa jeexal fekk moom dafa nekkoon fonctionnaire fii mais doomu ndar la ak soxnaam ni ma ko waxee léegi bi mu demee ndar mu dégg na sëñ baa ngi njaarim mu ñëw di ko siyaare si bi mu ñëwee fekk sëriñ bi tabax jumaa ngi ba noppi mu a sëñ Madu Lamin Jóob Dagana demal nga ànd ak yëlli sey mu visité jumaa ji yéli bisu jumaa ji biir ak biti kaw ak suuf yëpp ba àggal bi mu ñëwee sëñ bi ne ko waaye yéli yow mi nga xam ne yaa ma doon xeexal ca ca ba keroog bi mu buddee sama ñeent bant noo gisee nag sama jumaa ji par rapport ak ak euh, sama sama sama sama bant yooyu yéen daan na ko ne subhanallah wuute lool rek waaw sëñ bi bëggoon naa tam nga ñëw ñun ci koor gi nga xamante ni sëriñ bi def na ko fi mhm. te koor googu waxuma la ndogu mhm. waaye su dog masaana jot xobi garab yi moom la sëriñ bi daan jël mhm. bu ko yéeyee wanaa su ndox ma moom lay dogee koor ga te keroog koor ga mu mel ni euh, amoon nay jafe-jafe ñu bëggoon nga ñëw ak ñun itam ci ci koor googu ak koor ga koor gi moom mm, atum junni ak ñetti téeméer ak fukki juróom 1315 hijriya sëñ baa ngi fi ñëw 1313 kon 13 14 15. ñaareel ba jëm ñetteel ba ci ak nekkam ci géej gi ci la wax ne koor googa bi mu ñëwee dafa ñëw fekk mu metti lool mi tumuranke yeeg nattu yeeg noonu yeeg yëpp sëñ sëñ Basiru nee na boobu su ma saana woor ba ngoon jot benn tàndarma ba mu dëgg du ko am nee na xobi garab yi ci lay jël mu ci ndox mi ci ne pour rek wane ne du def wisaal wisaal mooy li mooy lan mooy nga continuer sa koor bañ a dog moom loolu da euh, ndax ndax loolu bokkul ci sunna su ko defee day day day dog koor gi ci ndox mi ci ci ci ci ndoxum xobu xobu garab yi bu noppee nag ne ci ay jaam yàlla mag yëpp ndax lu ëpp li mu daan def fii mooy koor la daan def ak ak julleeg ak bind ak yooyu nee na nag waaye euh, te booba nee na daawul xam weer yi weer yi ma arab yi ndax teru naag teru lu dul ci ab tënk boo xam ne da ko defoon ci téere boo xam ne saa bu ñëwee bu ko xoolee rek xam ne weer yi war naa teru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 loolu mooy li mu wax ne euh, mukarraman bi xirat taati wa sanad yi wax ne gan boo ko amee da nga koy teral te ganu koor li nga koy terale mooy topp yàlla ak def loo xam ne ak njub la bi mu koy bi mu ko defee ba koor gi jeex bi koor gi jeex nag muy tàggatoo ak moom loolu metti gan gi nga gën a fonk bu la ganasee andi lay xéewal andi gan la koo xam ne bu ñëwee day indi ñetti sërite day indi yërmande yàlla indi njëggalu yàlla indi kon buy ci ko xam lu ton nonu ak magay lolu faaw dana ko dana ko dana ko metti mu naqari ko nak mu dal def na qasida ak yaadal busharati bil ayati was suwari li shad bi kawni ya abd al muhsin as suwari di wone ne ci ci tarjumaani yaasal busharati sax mi ngi wax naan ma ngi ak yow weer wi ma anni lam amal la minni walam astaghni lam maanaam lam lam amal la minhu walam astaghni anhu doyolu ci mom teyit su ma sañoon daal du fi jóg toujours mi mi ngi fi rek. nu mu jullee Korité. <laughs> Korité nag ni mu ko jullee mooy ni mu ko dettalee nee na bi xam ne euh, xam na ne weer yu feeñ na yëg na ko dafa daal di ñëw taxaw fas yéenee julli def sunna sunna si nee ma xool sama ndeyjoor pour xool ba xam ndax kenn ngi ñëw xool sama càmmoñ ba xam kenn ngi ñëw bi ma noppee gis ne kenn ñëwul ma kàbbar di julli waaye fi ma ne ci biir julli gi avant may noppi am na ñaari xale yu jigéen yoo xam ne dañoo tollu ci ak njegemaar ñu dox ba tolloog man gis gis nañ ne li ñuy def ci ñoom tumuranke jaaxal na leen nee na ñu taxaw di reetaan su ma kabaree ñu reetaan su ma sujjootee ñu reetaan nee na ba ma sëlmal ma ne sama borom yaa na xam sab jaam de ay mbiram ni nga ma digale woon ma woor ma woore ni woore naa ni ni nga ma digale ma def ko su wari jotee def naa ko waaye nag awma as ab ah, ah, lu ma joxe asakay murum koor te loolu day sunna waajiba ci ku wooroon comme nag awma ko te su ma ko amoon itam du ma ko am du ma am ku ma ko jox loolu moo tax kon maa ngi maa ngi maa ngi delluwaat ci yow di la sant di di di def xasida goo xam ne moom laay def mu nekk sama asakay mburum koor xasida googu boo demee mooy xasida gi mu ubbee ala inna nii arju min al waasi al xaqi noonu la ko toppee nga xam ne moom ala inna nii ay seex lañ yoo xam ne fii la leen defee ak lu mel ne li rabbin xafurin ak ak yu mel noonu. kon sëñ bi juróomi at la def Mayomba ñu jëlee ko fa indi ko fii ñu jàkkaar lool di Lambaréné na sëriñ bi ci njeexteel 1899. 1900 la fi ñëw ndax rakkam di ab taalibeem di maam Cheikh Anta ci njeexteel 1899 la ànd Serigne du Ndiaye Diop dugg ci gaal yi ngir fekk si sëriñ bi fii ci na Lambaréné na nag bari na lu fi xew ndax barab bi ngeen jàkkaar lool fi la Serigne bi nekkoon fii fi la sëriñ bi bindee xasida googu nga xamante ni bii mi ngi ko tënkee wala xad karam naa bani aadama fii la ko sëriñ bi. Euh, E binde fitam fi fii la sëriñ bi binde romna ndax 50 francs yi nga xamanteni mom moom ko daan fay te buñ ko ko joxe du ko laal da koy sul bi dañ ñewon daf ko xeb nañu ko dajale ba mu bari ñu dajale ko diirub at ñu def ko ci mbuus jox ko benn tubaab bi sëriñ bi julle ba tàllal ay loxom di ñaan sunu borom mu jël mbuus ma teg ko ci ay loxom ni ko sëriñ bi am dërëm dégg nga sëñ Moussa ko wax ni Cheikh Bamba mas julli bis ca yor yor tuba ba bett ko fa yor peyor ba bam talale loxom di ñaan bur yàlla mu ni marabu am deureum mo yàlla talal ma say loxo du may say yàlla kero la bàmba dor tuba ba xagn ko quartier ga wëq tuuti mbeur ma gaañ ko dërëm Cheikh Bamba mbeur ma sul ko tuba ba ba ñu xëyee ñu fokk mom tuba booba itam sul ko kon lolu fi le xewe won fi ñu jakar loolu moy garde yi nga xamanteni ño ñoo daan garde sëriñ bi seen logement yi ba léegi gis ngeen zinc yi ni mu xomaage fii moo doon garde euh, euh, logement wu garde yi ñu jàkkaarloo itam moo doon palais bu gouverneur bi nga xamante ni bii moo fi nekkoon fii moo doon ab dëkkuwaayam kon baraba ngi nii boo xamante ni bii euh, ñi fi dëkk ñoom la ñuy wax galwa di population bi fi dëkk xeet wi fi dëkk mooy galwa te dex gi ngeen seen mu jaar fii di Logoué fi ñu jàkkaar lool ci Lambaréné ku tedd ki xaadimu rasuul Cheikh Ahmadou Bamba mango yi ngeen seen foofu la daan jàppe foofu nekk ci booru géej gi fukki dërëm yi nga xamante ni moom lañ ko daan fay muy rent boobu te nga xamante ni mosu koo laal te ma waxoon leen ni dajale woon nañ ko fukki weer ak ñaar fii la nekkoon di julli tubaab bi fekk ko fi jox ko xaalis ba ba sëriñ bi dóor ko ba xaañ ko tubaab boobu porté woon na plainte sëriñ bi ba ñu waroon a ànd njoolee fi nga xamante ni foofu la le roi du wasulu almaami Samori Touré fa lañ ko interné woon waaye keroog ba ñuy dem ci tribunal ba tubaab bi keroog lañ ko noppee gis xamuñu kaw la jaar xamuñu euh, suuf la euh, jaar. kon fii ñu jàkkaar lool fi la daan jàppee moo tax it barkeelu nañu fii ba jàpp fi gis ngeen loo ci yi fi nekk léegi ñi fiy bàyyeekoo. di dem fu mel ni pour Gentil tey dem par ñoo fi eh, déparé eh, fii ñu jàkkaarloo itam mooy eh, fi nga xamante ni bii waxoon nañ leen ni leen sëriñ bi fi la binde xaside googu di wala xadd karam na fii fi la ko rakkam maam Cheikh Anta fekkoon ci Lambaréné na waaye bala ma ciy sori dinaa ñëw ak sëriñ Fallou Boussa mu ñëw ak nun ci at yi nga xamante ni ku tedd ki xadim rasul Cheikh Ahmadou Bamba am na ko fii ci na te wax ni daj na fi loo xamante ni bii liñ ko mën a méngaleel ci méttiwaay mooy génne ak ruu kon dañu ànd ak Serigne Fallou buso mu ñëw ak nun ci na fi nga xamante ni ku tedd ki xaadim rasul Cheikh Ahmadou Bamba fii la nattu bi matee fii la ko sunu borom xamale ni ko nattu bi mat na fi la bàyyi ko dellu si Sénégal Serigne Fallou Bousso. bismillahi rahmaani rahim jërëjëf sëñ bay Guèye si la ñu ngi lay sant bu baax di sant yàlla mi nga xam ne may nañu ñu ñëwaat fii ci bërëb bu tedd bii ñu taxaw di lambarane wala boog réewi galwaa ni ko sëriñ bi di waxe eh, ginnaaw bi nga xamee ne jóge nañu Mayumba. ak si fi tey euh, loolu dañ ci sant yàlla bu baax a baax ni nga ko waxee Serigne Touba bi nga xamee ne yàlla def na mu jóge Mayumba de ginnaaw ba mu fa defee juróomi at yam fa def Touba bi dañ ko indi na Lambarana na di dëkk boo xam ne mën nga wax ne dex gi nga xam ne moom lañuy gis nii suñu ginnaaw ñu koy wax dexu Ogooué moo xaaj dëkk bi def ko ñetti xaaj am xaaj bu ñuy wax rive gauche ak xaaj bu ñuy wax rive droite. ak beneen partie bu ñuy tuddee île de Lambaréné nga xam ne dëkk bi ndox mi daf ko seq ci wàllu gu ne mu nekk moom moom na ci boppam mu nekk capitale provinciale boo xam ne gabonais yi ñu ngi ko tuddee Moyen-Nogoué dañ ko askanale dex gi nga xam ne moom moo seq dëkk bi euh, li fi nekk ci population yi tam war na toll ci ñaar fukki junni ak ñeent ci li nga xam ne moom lañ mujj recensé waaye ñu xool jamono bi fi sëriñ bi ñëw boobu mën nga wax ne presque ñi fi dëkkoon ci ay nit bari wuñu lool ndax daanaka àll la woon borom xam-xam yi historiens yi surtout gabonais yi sax dañuy wax ne turu li lambarane mi ngi jóge ci limbarine nga xam ne mooy seen làkk langu mene digalwa modi moo di nañ dem xooli ba xam ndax mënees na faa dëkk nañ essayé ba xam ndax mënees na dëkkam déet ci wàllu climat bu doy waar boo xam ne waxtu wu ne mi ngi taw li ko dalee ci mois d' octobre ba mois de juin lépp ndox lay doon diggante weer ci des itam waxtu wu mi ngi wàccee am ndox doonte du bari lool mu nekk dëkk boo xam ne boo xoolee نيخ مي باري اك ني نوخ مي باري نون ييت لا باري اي اي خيت ربي الله ولا اي خيت فورمي يو خامني داي داي ماتي دي دوجو سي تانك امون نا صاح جارو غورد لو ني تودي اي يو يو خامني دا دان مات نيت تي كوم مسانا مات دا فاي نيلو با فات ني كاي واخ لا مالادي دي سومي بوكو نتي لي تاخون بن دكتور المان بو خامني امنا بري نوبل دو لا بي ني كاي واخ البرت moom loolu taxoon mu ñëw fi pour faj xeeti feebar yooyu nga xam ne dafa bari woon ci zone équatoriale bi bi sëriñ bi ñëwee nag moom moo nettalil boppam moom sëriñ Tuubaa ne ginnaaw bi ma génnee Mayumba laay ñëw Lambaréné waaye bi ma fi ñëw ñëw naa fi ànd ak coono noonu la ko bindee ci téere bii nga xam ne moo di euh, jisaaw shakoor la tuuf fi jawaab bi Abdul Latif wax ci ne itam li ma fi daj metti na mettiwaay boo xam ne nii lenn rek laa jàpp ne moo ko gën a metti moo di ruu bu génn ci man mooy faatu waaye nee na lu dul loolu rek gisuma lu gën a métti li nga xam ne daj naa ko fii fii ñu taxaw ni ko borom xam-xam yi waxee te Serigne Touba bind ko fi la def fii fi la nekkoon defoon fi mm, diir bu bu bi nga xam ne moo ko dese woon ci géej gi wax na ne def naa fi ñetti at yu manqué tuuti loolu moo ko bind ci ci téere bi ci biir ñetti at yooyu mu defoon fii néegam ni ñu ko waxee ñaari néeg yoo xam ne ñoom ñoo ko fi defaloon mu ne fi ci commencement bi sax mbaar la woon moo xam ne moom moo ko fi liggéeyaloon boppam yi màtteeg yi dox ak yëpp di ko fa fekk su ma saana bëgg waajal julli wala mu maanaam jàpp day wàcc dem ci dex gi muy dexu ubbiwe gi bu jàppee ba noppi am na ak lu mel ne genre garab bu ne fii ci ginnaaw daana fa dem di fa toog di jàngal Alxuraan di julli di jaamu boromam di bind waaye ci tënk rek li fi xew bari na bokk na ci loo xam ne li na ko nee na toog naa fi benn bis di bind am benn waxambaane tubaab bu toll ci diggu dooleem bokk ci noobal yi bi mu ñëwee fekk ma maa ngi bind mu ngi yor jaasi joo xam ne dafa ñëw nee na di ko wëndeel di ma wër naan ma Ahmadou Bamba moytuma eh, di ko nee na xam naa li muy wax waaye maa ngi koy diglu rek mu naan moytuma ndax man sama maam mooy ki nga xam ne bi mu fi nekkee kuñ ci mësaana indi ci wàllu yu moo lay sàkkal pexe moo lay rey te man yàlla jox na ma kàttan googu ak fit woowu kon nag moytuma sëriñ bi nee na ma bàyyi ko mu wax a wax ba àggal bi mu waxee ba noppi ma jël sama xalima xalimaam gu tedd googu nga xam ne wax na ne noon yi nañuy moytu sama ciongu khalima parce que nee sama khalima dafa ñaw ba gëna dafa dafa met dafa dis ba gëna dis sax euh lépp luy xétu mbugal wala luy xétu bolde li yahzaril l aadaau satwa mirqami fa innahu ala al niqami mu daal nee ma jël sama khalima gogu dal koy joxar bi ne ko yow itam moytu ma te xamne duma ne du ma sa maam daan ray te te itam yow itam bokkoo ak sa maam joji nga xamne mo daan ray ñooña nee na mu daal di mu daal ci jëlee am tiib mom mom tubaab bi waxambaane bi daal di daw fa fëx Euh, samp xelam daw bi mu demee mu am ab diir am lu ko dal du ñu tuddee malchance ñoom ñoom ñi nga xam ne ñoo def parce que xeet wi dafay xeet wu doy waar wu wu ñàng wu mën a weddi yàlla mën a naan sàngara mën a tooñ bañ ku baax itam teg ci lu nekk teg nañ ko Sëriñ Tuubaa fii muy meene galwaay nee na bi nga xamee ne nag am na lu ko dal nag mu ñëw benn bis nag fekkaat ma ci néeg bi ma fekkoon nee di tuub si nee na bi mu ñëwee mi ngi indaale mi ngi ànd ak benn waay bu ko yoral ab gàtt muy am am xar xëy na mu ñëw fekk ma may may bind neena mu dal di defenu ci sama kanam dal ni ma fi jéggaloo ma ba ma xam ne nga rek duma jóg neena ma dal di baslaak mom mu dal dem fekk jamono bobu neena ma ngi talif qasida tollu ci harful alif neena ma dal jël sama xalima pour sante yàlla ndax Serigne Touba fu événement bu am ci geejgi rek noté nako lépp la bàyyi xel mu dal di bind alaana lil laylata qalba dirtidad min ba'd ma jaa bi shaatim wa midad guddik tay de kon waxtu guddila yàlla noyalal na ma xolup tubab bo xamne dafa murtad ba mën a tooñ te jéggi dayoo ginnaaw bi nga xamee ne ñëw na nag di tuus si nag àndaale ab gàtt ak daa loolu itam mënees na ko fekk ci mbindum Abdullahi Salim mi nga xam ne kenn ci naari gànnaar yi la te bind ci histoire Serigne Touba wax na ko ne wa mu'tadin murtadin aswaaba izzatihi yaxtaalu bayna qabaaihi wa zannaari bari waa na koo xam ne ab tooñkat lay doon di koo xam ne dafa sol yérey nguur wala yérey tedd nga eh, di di ndamu solub kabam takk ceinture am ñëw taxaw di léewtoo yow Serigne Touba waaye anzaltumuhu hadida dulli munkasiran bi sayfi nasrin hadidi nasli battaari nga wàcce ko ci ngësal toroxtaange ci jaasi yàlla ju ñëw jooju nga xam ne moom la la jox ba noon noonu bu léewtoo yow rek nga daal di kon señ bay fii événement yi fi xew bari na xëy na xataay bee tax duñ mën a tudd yëpp waaye itam ni nga ko waxee léegi kam ju baax ji itam di maam Cheikh Anta borom gaawaan ci mujj géej gi itam xam ngeen ne ñëw na Gabon fekk Serigne Touba bi mu ñëwee itam fii la ko fekkoon fekk Serigne bi téere yi nga xam ne jotoon na ko taalif mu di ay mool yu ci baree bari mu jël ko jébbal ko ko mu yóbbaale ko bi mu demee la tàmbali mool téere yooyu maam Cheikh Anta moo njëkk a mool téere Serigne Touba yi mu liggéeyee fii ci géej gi wax na ne ci nett li sëñ Moussa Ka ñu ngi koy gis mu wax ne keroog bi muy ñëw dafa fekk Serigne bi di gisee ak Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi mu nuyoo moom mu ne ko léegi laa doon wax ak yonent bi moo ma xamal ñëw kon loolu maam Cheikh am na ci ndam lu rëy am na ci itam euh, lu am solo loo xam ne yàlla ko ko jagleel muy fekk Serigne Touba fii ci Lambaréné xasida yi fi def bari na mën nañu wax wala xadi karam naa wala mën nañu wax rom naa sukkood la sibil kaafan nuuni nga xam ne am na événement bu mu lëkkalool mooy tubaab bi ko doon jox xaalis na am na sax lu ko jiitu loolu te mooy bi nga xamee ne sëñ bi ñu ngi koy fay 50 francs yi nga xam ne pension la woon te mu ko daan sànni ci dex gi te mujj am benn ab ab rëbb bu daan ñëw ko for ba mujj mu tuxu si dëkk ak moom fii tubaab bi gis ne daf ko xeeb tax ñu dajaleel ko mu mat euh, fukki weer ak ñaar muy 120 francs ci boobu jamono ñu takk ko ci ak ngise mbuus ñëw di ko ko jox ki nga xam ne moo ko daan jox euh, maanaam pansement wala boog pension boobu bi mu ñëwee fekk ko mu taxaw mu mu kab maanaam mu toog di di ñaan yàlla di di julli bi mu wax ak moom lu yàgg xam naa tontuwu ko mu xamal ko ne ko lii mu koy jox moo ëpp solo parce que lii mooy xaalis tubaab xaalis la gëm mu ne ko lii mooy xaalis sëriñ bi nag tawxiitam ci yàlla ni toll ak ni mu gëmee boromam loolu xëy na def ko xaal mu daal di këf xaalis bi maanaam li nga xam ne mooy ngise gi defoon xaalis bi dóor ko tubaab bi ba xaañ ko tubaab bi daal di mer dem daal di porter plainte bi mu porter plainte ñu convoqué leen ñoom ñaar ñëpp convoqué leen sëriñ bi ak tubaab bi ci benn tribunalu militaire bu nekkoon Ndiolé romb nañ ko bi ñuy ñëw boo jógee Libreville soo agsee Carrefour fi euh, ñuy wax Bifoun moom ngay jot dégg sa gauche Euh, tubaab bi dem na di wuy ji waxtu wax nañ ne bi muy dem ci yoon wi lañ mujj a xam ci moom dara ba tey gisuñu ko sëñ Tuubaa moom dem na ay yoon dem na yoon ay ay ay yoon foofa ci njole pour wuy ji convocation boobu ci waxtu woowu nag ci la am ndigal ci boroomam nag bind xasida ak rumna bala maa ñëw ci wala xad karam naa rumna bi mu mu di ci sant yàlla di ko wanit ne ko lii nga ma teg muy nattu yi ak coono yi li muy métti métti bànneex laa ko def ndax am na lu ma bëggoon loo xam am te fii a amee te yi rek ko a amee Euh, ci bayit woowu ma ma ma doon nettali ca ca bi ñu nekkee maayom ba ci rum naa boobu la nekk mooy fi mu doon ñaane yàlla tukki bi nekk pajuk aajo pour ñëpp pour doomu aadama yëpp waxuma juddit ñi rek wala wala sax murid yi rek mais ñëpp ijaal masir yi liikun bikun sarmadan wajaal masir yi za jawfal fara lil wara mislal maxaari ni ci rum naa boobu la nekk ngay dégg ci biir xasida gi muy wax ne katabtu fil bahri anni laa amuddu yadi ila nasara abidil maai wa tini ci géej gi fii ci lambarana laa binde ne man sëriñ Tuubaa di jaamu bu yàlla boo xam ne bokkuma kenn yi maanaam yàlla bokkuma ak kenn man rek moom rek laay wéetal du ma du ma ko bokkaale kenn bind naa ci géej gi ne sama loxo bi duma ko jël di ko tàllal ay nasaraan yoo xam ne pour ñu may jox xaalis nasaraan yoo xam ne ay jaami ndox dong lañ ak ban ñoo bokk cosaan ca aadama lañ jóge kon euh, ci loolu fii fii la ko waaye wala xam ne karam bi nga waxee tam fii la ko waaye moom ci mujj gi la ndax da gis ne am ne mooy firndeel ci mujj gi la mooy fi muy waxee naan yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga tas yaakaari noon bi nga xam ne daf maa bañoon ba tax mu ruuxale ma ak tubaab bi ba tubaab bi jàpp ma indi ma fii ci at moomee nga xam ne sama yéene moo doon dem aji mag muy atum jey session boobu nga xam ne bi muy jógee wala bay session sax parce que bi muy jógee Touba di sanc Mbàkke Baari loolu bay session la boobu yéene moo doon waaj dem aji waaye biñ jógee jey session ca ñaareelu weer ba ca safar ba ci la xew-xew bi am muy muy tukkib géej gi mu ne nag noonu boobu nga xam ne nag yene moo doon fexe ba galankor ma ba duma aji ba ba ba du ma def lima bëgg def ma ngi ñaan nga tass yaakaram te bobu fekk na ma ngi bëggona dem aji moo tax mu ne xayyib raja allazi yaqlihi fi abadin min aami aiqa wa kaana alxajju mizana dal di waxit ne li taxoon nga andi ma ci geejgi moy defar ma manam yow yàlla moy da nga boole maag say non ñu di ma teg tumaranke gu ne di ma teg maanaam bu ne bama am tarbiyé bi gëna kawe yar yaru ruh éducation spirituelle bi gëna fort ag ci wusool parce que fi ci galwa fi ci lambarana nga xamne fi la mené galwa nek fi la waxé ne fi la agge ci yàlla yàlla bu doon dëkk la bu ñuy ag sëñ tuba ne ne fii ci galwa la àgge fofu lillahi qad wasaltu inda galwa wasaana nii amaay jurul balwaa mu ne ko nag wusul bobu ag gogu nak fi la ko amé comme fi la ko amé te mënu ma koon a am ci sama rew man ko am ci sama biir bok sama biir talibé kon tarbiye la la laajoon moy defar moy ay épreuve yuñ may tek ma tegoo ko mu ko nag xam naa ne teg nga ma ko ca Mayumba ma tegoo ko nga teg ma ko ma tegoo ko nga teg ma ko ci Kabla-Bissa ma tegoo ko ak la ko jiitu ci Conakry rek ay daawu meeg ay dégg nga Garambassa ak Ndakaaru ak Ndar parce que Ndar rek wax na nee na ñaari weer yu manqué yi ma fa def daj naa fa loo xam ne du ma ko wax waaye xam naa ne loola tarbiyatul xayi la si laay mut la yarub yàlla mi nga xam ne day dund te du faatu la moom doon defar mu ne ko nag yar boobu nag xam naa ne jeex na rabbayte nii yow sama borom ma حتى رجوعيا للأوطان قد حانا yar nga ma fil aadaai muxtariban ci biir noon yi ma tumuranki wéet man rek ak ñoom lu ne ñu teg ma ko léegi nag yar bi xam naa ne mat na kon jot na nag léegi nag ma delluwaat nag ki sama njaboot delluwaat samay réew daal ne kon nag maa ngi lay ñaan dellu gi may dellu ki sama njaboot na nekk texe ñeel sama nit Sénégal gépp Afrique gépp suñ yëgee ne delsi naa rek loolu na nekk ak texe ci ñoom fii ci àddina te su ëllëgee yomal xiyaam itam نغني فغال سوارا اجعل رجوعي الى قومي سعادتنا ولتكفينا يوم جميع خلق نيرانا لولو سي تنك ريك موي ليغا خامني موم لا سيرن توبا لن سي لنجي مانا تودو لو خامني تالف نكو في سي اي تيري بارينا كين خامول لومو تولو اكيت ليغا خامني اوسي واخنا كو سي لي وناني في فو متي لا وون سي موم فو تيس لا وون فو خامني ليم كي تنك ريك سي بات بوبو واخني دارا dara gënta métti li ma fi daj lu dul génn gu ruux loolu doy na amul lenn luñ ci mën a commentéeraat asiru ma abarihina asiru wasalna nida amiruna asiru sëriñ bi wax na ni lu nekk daj na ko fi wax na ni li mu daj fii ci Lambaréné li mu tollool ci ab méttiwaay rek mooy génne ak ruu kon fii ci na fi la serigne bi def atam yu mujj ko ci 1900 ba 1902 fi la serigne bi bayiko nak ci euh, octobre 1902 ngir dellu si euh, Sénégal kon ñew nañu ak yeen tàmbale ko ci Mbàkke Bari ci Jolof fi sëriñ bi xeyewon jaar ak yeen ñew ba barab bi nga xamanteni ni moy Gabon te li taxoon tubaab yi tànnoon ko indi fi sëriñ bi moo doon bëggoon ko liquider physiquement te moo doon jël bakkanam te loolu ñoom gisoon nañu ni ñoom tubaab yi bu ñu ko deful itam nature bi di àll bi wala rab yi fi nekk danañu mën a def loolee ndax gidd bi nga xamante ni bii moom laa leen doon wax léegi te ngeen gisoon euh, document yi tubaab bi def ko waajaloon ngir tubaab yi fii war a ñëw ndax ci biir giddi boobu mi ngi wax ni nit ki boo ko jëlee fu mu dëkkul yóbbu ko feneen dafay mel ni ak njëmbat gu ñu jëmbat jëlee ko fañ ko jëmbatoon yóbbu ko feneen dañ ko war di suuxat di ko toppatoo loolu moo taxoon ñu waajaloon tubaab yi waroon di ñëw Mayumba waaye sunu jàmbaar ji moom sunu borom moo ko waajal ñoom tubaab yi ña nga doon waajal tubaab yi jëm Mayomba wax ni njëmbat la boo koy tuxat danga koy suuxat waaye ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba moom sunu borom moo ko doon toppatoo sunu borom moo ko doon suuxat loolu moo tax lu nekk daj na ko fii natt nañ ko ñaar téeméeri nattu ak juróom ñetti fukki nattu ak juróom loolu Serigne Moussa Ka wax ni masoon nay wax ak aw nit banaa nattu yiñ ma teg li mu sóoratul ahwaani lañ teg Serigne Touba gabon ngi noonu bi fi sëriñ bi ñëwee ak léegi téeméeri at la ak fukki at ak juróom te sëriñ bi day yorul woon oto nun ñi nga xamante ni bii ñëw nañ fi Prado bi ñu yore woon gis ngeen ko bi nu demagul Mayomba ni oto bi meloon waaye xool leen ko bi nu jógee Mayomba oto bi mel yoon yi naqari na crevé nañu bi ñu fajaroo di dem mooy la bi ñu eggee Mayumba crevé nañu fa bi ñu ñëwee merena, crevé nañu fa kon gis ngeen Mayomba ba légui ku dem Gabon il faut nga am ay jafe jafé waaye xéewalug Serigne Touba gi ba exiki, ci chauffeuru gabonais gis otom bi ay bant ta daanu mu def fi semaine bop dem na ba amatu lu mu lek yeratul day Serigne Touba ndax talibé Serigne Touba ngir yóbbu ko Libreville kon lii la ñu leen jëlale woon Gabon ñu di leen sant bu baax a baax di leen gërëm mu doon doonoon seen mbokkum taalibe liggéeyaa ko nu borom Daarul Mooti mi doon jéem ci eh, caméra bi ginnaaw bi Mbacke Mbodj monté ba noppitam moo doon def eh, commentaire bi nuy ñaan rek ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba yàlla na nu ko sunu borom fayal.